ma leen fàtte émission li na sur les antennes de Sénégal 5 vous êtes en compagnie avec El Modou exactement alors El dañu daal aussi ñëw si leneen itam rapport alors et qui xam que mu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a peut-être débuté euh, débuté quoi comme puisseur gouvernance à travers l'application justement des rapports euh, IGE euh, OFNAC ba si li nga la Cour des comptes pas euh, plus tard ziar gis neen ki na xam nekk moo di euh, euh, Mansour Faye ñu daal di koy li nga xam nekk moo di daan Cour des comptes mu daal di fay jaar si kanam ki nga xam nekk moo di Aminata Touré alors naka na daal di càngatee li nga xam ni feeñ na si rapport yi que soit si Prodac bu Mambay Niang que soit si gestion Covid bi que soit si li nga xam nekk moo di Mamour Diallo et tant d'autres tant en tout cas euh, xanaa di gën a ñaawlu rek euh, Sénégal ak ni ñu jàppee ne noonu la ñu war di jiitee ci surtout régime bi nga xamante ni mooy régime sortant bi.

pouvoir nommer par décret nommer la par décret euh, dénk la lu ama am solo dénk la lu diis ak diis a diis mm. xam nañ ne en deux mille dix en deux jëm 2020, Mansour Faye presque pratiquement da doon buur du boumé ci gouvernement Sénégal lolo ñu bëri xamoon nañ ko ah. man en tout cas am na lu ma ci à travers <coughs> euh, les leaders politiques yi nga xamante ñoo à la base te ñu xamante ak ñoom ak xam fan la jaar ba yegg alors ñu gis bu demee bané da fay porter plainte gis nañ li jëk def euh, euh, euh, insolence nak ak arrogance fay top nit ba ci bamélam parce que hmm. jikko lolu ci pax la jëm ak borom gis nañ né Mansour Faye interpeller nañ ko fi mu wax journaliste bi nak bo boo ma ko laajate ma porter la plainte donc gis nañ fi aussi Mansour Faye gis nañ né bim ni bi muy def bi donné ce qu'on appelle ministre de déclaration de de c'est bien moy de de son patrimoine mais aussi gis nañ nañ ne bi mu paree euh, li mu njëkk a def mooy à travers cette et eh, son arrogance mm. li mu njëkk def ou déplacé moi dem man je suis vraiment blanc comme neige pour moi ne euh, euh, nit ki ak qui ak toujours maa ngi pour wan la né la nit ki kan la mm. alors kon kooku bu ne dana xool koo xamante dafa membre du gouvernement wala boog mu nekk à travers la coalition bi nga xamante moo installé le pouvoir en place mm. mu gis ci koo membre de cette coalition là en l'occurrence madame euh, Aminata Touré mu ne da porté plainte euh, sur diffamation man damay jàpp ne rek mu ngi ci lim nekkoon ba léegi loolu nag euh, bu fekkee ne euh, la justice joxe na verdict wane ne Aminata Touré moo am dëgg loolu gis nañ ne kon liñ doon wax ci président Macky Sall da doon wax ne yenn am na dossier yoo xam ne moom moo ci teg ci yoon ci loxoom ñu ne Cour des comptes publier des rapports épinglés man dama jàpp ne li ñu def mooy suivre ces, ces corps de contrôle-là, que ce soit IGE, IGF, cours euh, Cour des comptes, IGE, quand tu me le donnes, le rapport, vous publiez, épingle, Euh, responsable wala épingle ci benn euh, notable boo xam nekkoon na ci régime sortant mm. vraiment dafay yoon procureur mën a autosaisir wala procureur wax dëgg yàlla ñu jox ko dossier bi jox ko ay instruction à que mu parce que nag askan wi dafa am lu leen lu leen yitteel askan wi li leen yitteel du suivre seen politique bi ñu nekk ci tey dorante bi fii mm. askan wi li leen yitteel mooy xool lan mooy dëgg ku ci def ñu jël la jébbal la yoon yoon def liggéeyam nga fexe delloo askan wi seen alal parce que askan wi soxlawuñ ko ñu tëj. Hmm. soxlawuñ ko nit yàq ay xoolal mille milliards lan la mën a investir. en hmm. terme d' investissement. Hmm. lan la mille milliards mën a def. te loolu Covid 19 kuñ la wax ne la yàq nañ ci mille milliards. ñu la ci ay dignitaires yow dangay xam ne lu war a mën a nekk parce que euh, euh, Covid 19 nan la mbir mi doon dox en tout cas Kaffrine mën naa ne la corps de yëpp. réunir à la permanence de la may Maïlen ay 10 millions ay 5 millions ay. ça euh, sonné ne ci période Covid. Il dit, tasaare xaalis bi bi comme c'est pas possible loolu c'est le le mën nga interroger histoire pour mën comprendre am lu ñu fi mayewul ci ay millions. Hmm. ku ñëw dóor la 500000 fii de 1 million fii bu loolu weesoo nga ñëw au niveau central nga gis ne mingi am ay marché euh, ay gré à gré nga gis ay marché ni marché yo xamanteni niñ ko euh, du yoon gis euh, ministère n'a rien à voir avec la question de de de la Covid mu impliqué yu ci ba mu ngi mel ni daal dañoo teg mille milliards yi kenn ku nekk def expression de besoin à travers yow li nga war a am ci sa nar wi ñii nga ñëw ñu jébbal la nga dem nga dem naru donc loolu doon loo xam ne ñaaw na au même moment au même moment sunu yaay bi nga xamante ni dafa doon defar fonde di jaay. Mm. à partir de nga xam ne ci loolu la doon dundee moom mm. njabootam à partir de 20 heures ñu ne ko yow mënatoo jaay. fonde au même moment sunu yaay bi nga xamante ni cere la doon jaay ñu ñu ñu ne ko à partir de 20 vingt heures yow da ngay dem tëri toutes les activités. Hmm, nocturne yi nga xamante ni da doon am guddi ñu arrêté leen ñi ci doon am ay euh, tuuti weccet di ci dundee ñooñu ñu téye leen mm. vraiment teg leen loo xamante ni ñi leen koy teg ñoo leen waroon dimbale boo xoolee boo demee nga interroger ñi nga xamante ni ñoom ñooy def mayga xam nga boo xoolee may ga ñaari heure lay liggéey man nag gars yi ma tooñ ne ma ko bëgg mayga nga mais dama ko waxee noonu guddi gi ga guddi lay liggéey ak suba si mais tey la majorité. Hmm. presque pratiquement hmm. dans les zones urbaines dans les banlieues. li par par par par euh, hmm. presque place bi donc vraiment noonu euh, mu doon mbir moo xamante ni te ñi ko def ñu ngi fii toog di taxawaal. Mm, mm. loolu nag je pense que taxul ñuy wax li nit ñi di xaar mooy vraiment yoon def liggéeyam xool ñi nga xamante ni euh, def nañ ñu woo leen euh, fexe bañ delloo xaalis.

Euh, yëf yi euh, da ko war a régler comme réduction des comptes wala kon comme règlement des comptes parce que gis nañu Omar yu mu ne. Mhm. Euh, yëf yi bu mu jàll exactement si règlement des comptes mais ba tey na des exactement sur la réduction des comptes. ñu ngi ñaan le président Bassirou Ba Diomaye Diakhar Faye bu ko ci kenn dugal. Hmm, Ousmane Sonko ñu ngi ñaan ba règlement de compte bu ko ci kenn dugal. parce que xam nga lan moo gën a métti. Hmm. nga jël koo xamante deful dara nga tëj ko ci kaso gi. te règlement de compte daf la yóbbu jël ci ko jël ko deful dara nga dugal ko ci kaso. dugal ko ci kaso te kaso nag wax dëgg yàlla kenn waru ko yéene benn jullit. kon loolu moom nañ ko moytu. Hmm. parce que nit boo defee ce qu'on appelle euh, euh, règlement de compte xaaral ci yow suba nguur yàlla moo ko yor moo koy jox ku ko neex. mais saa bu jotee ci alxuraan ni ñu ko waxee mooy waxul sax da koy nangu da koy fekk mm, lañ wax. Mm, mm. donc loolu nag. est-ce que waa APR waxee waxewuñu ko si tiitaange. non non non euh, damay ñëw waa APR taxuñ may wax. damay wax li nga xamante ni mooy l'orthodoxie des choses. c'est-à-dire li war am. Euh, yàlla sunu borom euh, nanguwul. doomu jullit bi jël koo xamante ni da ko jël pour noot ko jaay ko doole su boobaa li fi nekkoon démb moo fiy dellu si man damay wax de manière objective Euh, li ñu def moy réduction des comptes oui de war am. nit ki buñu gérer, alalu askan wi alalu askan wi nga gérer ni ko doon gérer ñu sanctionné la sanctionné benn état bu fi jaar gouvernement bu fi nous jaar je veux dire kon bu boba nak laaj la ni nga alalu askan wi dafay jaadu. lan moo tax wax loolu. Hmm. tey bu fekkee ne dañu ñëw ñu ñu ñu ñu ñu euh, président euh, Bassirou Diomaye Faye au premier tour avec 54 lolo signale signal c'est un signal fort. Hmm. pour que nous xam ne ñi fi nekkoon wax dëgg vous bu fekkoon ñu ngeen pas dañ fa war a jógee wala faites fee jógee konoon di élection yi deuxième tour. alors élection yi demul deuxième tour premier tour là dem boo bon de faire sa analyse da ngay à ce askan nous dañoo merewoon au ci tentative bi ñu waroon a njëkk a def ñu à travers l'élection législative mais mu xaw a am tuuti changement askan wi xaw a mel ni lu jaa jaawale ñenn ñi nga xamante ne dañoo raaxal woon ci biir affaire bi te bokkuñ ci. Hmm. donc ñu jéem a ballottage xaw a am ba assemblée nationale war a ñëw xaw a tuuti équilibré. mais mu am ñu migré ba tax majorité bi reste toujours. Euh, dans dans le côté du du du pouvoir. Hmm. donc yooyu doon mbir yoo xamante ni kon forcément réduction des comptes dafa war a am. réduction des comptes nag buy am dafa war a procédural. moo tax man d'accord naa ñiy wax ne affaire bi dafa yéex affaire bi dafa yéex dama ne lii war a am moo am

Euh, dina arrivé à ce point dina arrivé à ce point. te loolu miracle la boo xam ne yàlla sunu borom waneeti na waneeti na boppam. Ah. waneeti na boppam ci ne. Hmm. gis nga lim nar a def mbindeef mënu ko ko def lool mënu ko ko hmm. tee def. mais man nag j'étais catégorique. pour que ñu jëlee fi lu fi parce que mm. xamoon naa am na lu ma ci dund man ci pression ci injustice mais aussi ci mal gouvernance mm. ci loo xamante ni yow def lay leer ne lii du lu ñu war a def. donc yooyu nag vraiment bu amee réduction de compte de comptes dafa war a am te bu amee pour mu procédural dañ ko war a jox ki ñu ko war a jox. Euh, les corps de contrôle def seen étude gis publié le procureur de la république autosaisir ñu def ay enquête hmm. top enquête bi gars yi bañ ci yakamti quoi man hmm. bëgguma ñu yakamti dugal ko xamné ne deful dara vraiment lool dal buñ ko def nañ ko jox ñiñ ko wara jox hmm. ñu liggéey ci jël ci seen temps luñ ci wara def ñu def ko parce que jël ni dugal ci kasso yi deful dara baaxul mais aussi bayiko koy dox te war kaso euh, place am tamit du yoon alors donc mi noon exactement entre la reddition des comptes et le règlement des comptes il module indi euh, ay éclaircissement allant dans sens exactement alors ñu daal di jàll si leneen sans plus euh, tardé daal di qui n'a ki nga xam mu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye récemment mu décidé exactement le conseil constitutionnel c'est-à-dire les sages du conseil constitutionnel nous